asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi maa ngi nuyu di bu baax di wàccee ku nekk wàccuwaayam di kontaan bu baax a baax a baax si topp bi nga ñuy topp ak siiwal bi nga ñuy siiwal dégg nga di remercier ñi ñuy ñuy abonné si chaîne bi ak ñuy partager vidéo yi ndaxte tey ñooñu ñoo tax tey chaîne bi dem fu ne ñëpp xam ko ñëpp ñoo fi di jëriñu bët bu set nag nga gis ñoo xam ne dañuy envoyé message di ñu remercier di sant di ñu gërëm. am na ñoo xam ne dañuy euh, pratiquer secret yi di si gis résultat ba pare di ñu woo di ñuy wax efficacité ñu gis si secret yi ñuy joxe loolu nag lañ si xaar di sant yàlla di wax ne lépp yàlla la ñun duñ si dara ñun dañuy def rek yàlla moom mooy mottali dégg nga comme ni mu leen nga faral di waxee rek balaa ngeen di def benn secret na ngeen di defar seen yaram raxas seen yaram protéger seen bopp comme protection bu ñu fi joxoon démb ngeen protéger seen bopp protéger seen couple seen lépp ndaxte doomu aadama. bul xaar ba am ay jafe-jafe doog a jóg jafe-jafe da nga koy prévenir waaw donc euh, dañuy wax euh, souvent mieux vaut prévenir que guérir kon donc da ngeen di prévenir seen bopp ndaxte loolu mooy tax lu bari bu ñëwee di leen bañ a gañe ngeen aar seen diggante yi surtout jigéen ñi nga xam ne à chaque fois euh, vraiment dañuy daj ay difficulté seen mariage yi seen jëkkër yi leen abandonné di leen bàyyi di leen seetaan xale yi noonu vraiment métti na waaye ngeen muñ rek te xam ne àdduna moom muñ rek mooy sotti lépp góor ñi ñu am na ñoo xam ne itam seen jabar yi respecté wu leen faale leen fonkuñ leen dañ leen teg ay jafe-jafe waaye jigéen tam nañ koy muñal comprendre ko toléré ko dégg nga bu ko defee ngeen seet si njaboot gi yàlla dafa leen tawfeex dafa leen jàmm incha allah dégg nga tey nag euh, comme ni ma leen koy faral di waxee rek damaa ñëw ko indi leen secret man na lu may bañ mooy ko may woo naa ma sëriñ bi man du ma sëriñ dama leen koy rappeleel bu baax du ma sëriñ wooteewu ma ko itam am nañ beneen activité bu ñuy yëngatu ku ñu soxla nag si wàllu ñaan bu waxtaanee ak ñun dinañ xool naka la ñuy dimbalantee mais damay leeral rek toujours ne man du ma sëriñ wooteewu ma ko nekkuma ko dégg nga euh, di leen itam moytuloo tamit genre yooyu nit ki boo nekkee si ay difficulté da ngay def ndànk ngeen bañ yàkkamti bañ a sorko seen mbir ndaxte dafa am ñoo xam ne lii euh, kii lañ ko def manam nax nit ñi wala yu démé non té mbir mi nekul lolu moo tax man souvent buñ may nit ñi di wax na ma sëriñ bi nang dama naa leen dédét ndax bu ma ak yeen ci mbéd mi mëna sol sama jin mëna sol sama tisset mëna sol sama xaftaan du nekk dama koy ki dégg nga kon nak dañuy waxanté dëgg ku am suñu yaakaar nak bu ñu jokkoo ñun a ah, dina xol yi dimbalante ma leen ñaan rek ngeen wéy du yokku abonné yi partage vidéo yi bu ko défé am na ño xamné ñu ngi fi amuñ occasion pour di am accès si chaîne bi di xool li ñuy def ñu koy jëfandikoo chaîne bi lu ne lañ fi joxe dañu fi joxe wàllub euh, secret yu jëm si wàllu neexal diggante dañuy joxe loo xam ne tam wàllu kaaraange protéger sa bopp dañuy joxe itam wàllu lu jëm si affaire wërsëg lu nekk daal mu ngi fi lépp loo xamante ni yàlla xamal nañu ko incha allah dinañ ko indi séddoo ko ak yéen tey nag secret bi mu ne indil mu ngi neexal diggante defar diggante diggante boo xam ne dafa ñagas am ay problème tay li la leen andil kep kum dal rek nga def ko si lu jub def ko si lu baax incha allah nga ni ngeen koy defé moy ni mooy bu ngeen ko gisé xamé ngeen ko sama mbokk saareen saareen ni li du pour lek nak li dañ ko utiliser bu len ko lek dégg ngeen ak ñu sante sow bu len ko lek dégg ngeen da ngeen wut ben soble dama ko dagga ba pare mais da ngeen du soble soble bi da ngeen koy jël ngeen xolliko ko bu ngeen ko xollee bam set bu ko defé da ngeen koy xar ci digg bi gis ngeen deux parties lay nek ñaar après la ngay def nga tek ko à côté ni nga bind li ma lay wax luy kun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim nga bind xawaatim bi ni ngeen ko gisee ni ngeen koy bindé day nek 1 2 3 4 5 6 7 8 neuf ke neuf ni nga koy tracer ngeen wone lako ak innahu ala raj'ihi la qadirun lii ngay bind so pare nga tëgg allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman fa yakun amin ci dig bi ni nga ñu bindat innahu ala raj'ihi la qadirun bu ko defé nak yéen a gis habini habini nii ngeen yaatal def ci tour yi manam sa tur na ne ci kaw ak turu yaay mo touram ne ci suuf ak tour yaayam nga tëj ngeen continue ko ak la khadirun so pare ya, nak nga jël keet gi mo nek ni mo ngay jël nga def ko ni ci soble bi ni nga jël morceau bu weex nga ëmbé ko ko nga sul ko fuy toy koo xamné day sedd mëna nek ci tatou geej mëna nek itam ci jardin manam sa kër ci jardin bi jardin bu nek sa kër ngeen bàyyi ko xel bu baax dégg ngeen ni ngeen koy defee yomb na ni kessé la ngeen sul ko ngeen bàyyi ko noonu beneen bi ma leen waxal moy da ngeen di bind innahu ala rajaan yi la moy inna wala rajin rajin la xaadirun bi ngeen gis mo ngeen bind daa ma expliqué leen pour mu gën a clair ni ngeen koy bindee innahu ala raj'ihi la qaadirun bu ko defé fi fi ngay bind sa tour ak sa tour yaay bind fi turum ak tour yaayam so paree nga tëj nga bamtu ko bamtu ko bamtu ko bamtu ko bamtu ko bamtu ko bamtu ko bamtu ko ba mi 779 779 fois lay nek ngeen baal bindu dafa xaw ki kii ngeen koy bind su ngeen paree nii ba am écriture yëpp manam bind bi yëpp bo ngeen ko amé ngeen ni innahu ala rakihi laqadirun mais bu ngeen bu ngeen commence comme ni ma ko bindone bu njëkk nu ngeen koy bindé bu leen commence comme ni li ngeen koy bindee rek mais de leen yaatal xaa bi ngeen bind seen tur yi 779 fois te mu ànd ak set ak sell comme ni ma leen ko waxee ku leen di bindal tam na set sell tam bindal leen ko lii nag suba lañ koy bind suba su jant bi di fenk soo paree nga tëj ko ak allahumma salli ala sayyidina muhammad kon nii allahumma salli ala muhammad وعلى آله وصحبه وسلم يندف تسليما يندف فيكون آمين دينغا lii nii ngeen di bind 779 fois ngeen yaatal xaa bi bind tur yi li mel kon ma leen ko waxee ngeen tëj soo leen paree lii loo leen koy def da ngeen koy def si si show wala show show yi show ndaw yooyu ngeen def ko si kayit yi ngeen di jël def ko si ngeen am saafara si soo leen paree ngeen koy sangoo di si naan di si naan chaque jour ngeen ngeen koy sangoo di si maanaam ngeen si ngeen koy raay raayoo di si naan incha allah di def zikr bii zikr dégg nga zikr bii ngeen di def lii mooy innahu ala rajin la xaadirun si nit nga bëgg dégg kon yaakaar naa leer na premier bi comme ni ma leen ko waxee woon bu ngeen bindee lii comme ni ma leen ko waxee su ngeen paree nii ngeen koy amee ngeen def ko nii def ko ci morso suul ko fuy tooy wala si taatu géej kon yaakaar naa ne tey lii leen leen andiloon comme secret dégg nga di leen di ñaanal di sàkku ngeen ñu di leen wax itam ngeen wéy di jokk abona yi di partage vidéo yi si réseaux sociaux yi si whatsapp instagram twitter facebook fépp ñëpp mën see jot su ko defee incha allah rabi ñu mën see jëriñu comme ñun ni ñuy def suñ kéem kàttan di leen di envoyé ay kii yéen itam leen def noonu dégg ngeen incha allah kon ñu ngi yam fi dina jox di dajé suba wabarakatuh. inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh